loolu xekkam la boo xam ne ñun ñëpp mën nañ cee jariñ daana wax nit ne waxit ne kenn ku ne ci noonu ba maa gis ki yéen ñëpp ku ci ne booy dëkk danga fexe ba luy luy taal sa kër wala lu fi indi sawara wala lu koy lakk fokk ngay jéem a fego loolu fego loolu ba du ba du am te noonu nga koy fegoo ni nga waroon a fegoo luy tee nga dem sawara te kat nee na ni sëñ bi wax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 xadamtuhu bi xidamin la faaniya laha min alxidami laysat faaniya dellu wax nag baytu xasaay di waxoon ne moom dafa soxoon sëñ Saaliw loolu ma daa ko dégg ci moom biatu wa jahadtu wa ubtu xaanima wa saaliman mulaasiman maxaanima sëñ bi foofu wax wax na fi léppam jaayante naa yàlla jihaar naa dem naa ca tukki ba ba ñëw indaale màngo mu doy sëkk indaale ak mucc te màng yi ma indaale duutu fi jóg